gaz bi jeexati na. lii waaw cuuj na def ça va foo jëm ne. damay jëndi ndekki waaw jeewu xiif. doo ma jëndaaleel gaz dama doon taar rek bi jeex. amul benn problème. oli xaalis ba pare ah. maa ngi jégalu de. ah amul problème ñoo ñoo bokk kër gi su ma la jëndaalee woon ku lay jëndaaleel. oui.

Ah, alhamdulilah. ah bopp la yaa ngi raxas. man raxas pour lekk añ waaw léegi xam nga nu ñuy defam man damay dem kër Eva Faye su ma fa jógee nag damay dem seeti Alioune Badara fa laay aña tey. yow maa ngi nii sóor añ bi lenk ña ndab yi pour yekk añ bi nga xam maa ngi dem kër fan fooy yéen a kër Alioune Badara fa laay aña tey. Alioune Badara ñëwagu fi añ ci moom. ah loolu du ci ay affaire ànd moom la ci dara léegi daal bu ko defee incha allah. Touré eh, nga ne foo jëm yow. waaye Yacine bul ma jeqi ah bul ma jeqi nag di ma paspate fu ne nga bëgg ma xam kis ki sa dinaa la jeqi kay ma soor añ bi war ka añ ma yow man dong ak cundu nga añ bi xam nga yow juboo solo ba jekki une heure dem sa yoon. naa ko ubba nga ñëw fekk ci añ bi ndax duma ko man dong. ba waaw ah. war naa commencé di def ay affaire waaw. dëgg la kay. wecc doy wecc mm-hmm. damaa war a damaa am gan ba doo am gan ma bëgg a togg ceebu jën bu mel ni jàmm rek. Ah. maa la wax lii. yow kay kon xaaral ma jox la 1000 francs nga toggal boo toggee may ma benn benn. nga faal bi ah tere. yow yaay sama càmmiñ xam nga ne yow damaa war a togg ba mu neex jox la. loolu bu la ci dara naqari. dëgg la midi na nga dikk. xam nga ko war doon moom war na laa doon. bàyyil ma dolli ci rek. duñ ko doonante. Ah. waaw maa la wax lii. Ah, waaw merci jërëjëf Fap. Ah, jërëjëf merci di gaz bi fas yéene teg te fas yéene togg ceeb bu togg rek. maa la raw. ana man de toute façon je vais damay bàyyi. On m'entend que des miettes, parfois rien du tout. Mais on se calme. Rolal, il faut savoir transformer sa colère en énergie positive. lan nga xew le bay démissionné ak lu ko fi jar xoolal man daa waxtaan ak sama gan tuj amul problème boobu te yow xam nga ni temps yi dil amul dara amul dafa dëgg suñu côté yaar yaa wi ma ji bi xoolal kaay ma may loo xamante ne nag gis nga temps yi mu ngi préparé ngandem dil te xoolal bës bu sottee suñu bamba naat lu leer nañu laa wax ñoo ngi koy togg waaye ñoragul. loolu kañ hmm, dafa ànd ak patience ak dal léegi mu jot. teel rek yow teel. mais ci boppam. Ah, man maa fi nekkul di xaar. déedéet. man de toute façon je vais je damay bàyyi. doo bàyyi nag sama xarit bu def loolu. xëy na ngay waaru eh ni Kumba yow lay woode de Alioune. woote rek. Ah. woote rek la fi nekke woote rek. du la bàyyi mukk nga toog waxtaan ak sa nit. kay woote rek ma ñëw Moustapha. bi jeexati waaye ma tey mu Kumba lan lan moo xewati lan la. gaz bee jeex. tin li daa bax balaa may tey gaz ba jeex mu ngi nii nag jox ma ma jënd gaas yow lu di gaz bee jeex tama ma jox la 5000 francs yu tojul dërëm ci suba gi léegi léegi léegi boo tifli woon du seey kumba yaa tàmm lu bon yaa jéeg bu bon hmm? lii def nii jaadu na lu ma la jox rek nga dugal ku ci tontine yeeg ci natt yi rek hmm? di sàcc rek di sàcc sa jëkkër rek nga deen di nga lu baax boo ma muyul dinaa la dóor ba kuluj la de kuluj dinaa la kuluj de yow xanaa tey nga mën a te bis bu na ma ah, ah, na na ma na kumba gaz bee jeex waa loolu rek ngeen ni yootu leen jàmm kii recherche leen jàmm baax na jëndal kër yi man du ma buy toggee këriñ sa 200 yooyu dugalaat ko sa biir poste bu dee man nag añ bi du pare. waaw bu dee da am gan bu dee man añ bi du pare. yow yow sa gaax baaxul. kii moo bon dëgg dëgg dëgg waaye ma tu vas voir avec moi. kii kii. man daal li ci wóor boo wóor moo di man dama xiif xam nga nu may def bàyyil ma ñëw dem daal kër

mais nag yooyu des fois ça arrive quoi xam nga ñoom macha allah li ñuy defar ci ay gaz day bari li ñuy defar ay junni junni gaz àdduna bi yëpp ñoo leen jox gaz. Euh, am na benn numéro bu nekk ci suuf numéro boobu ngay jël nga relever ko c'est un problème technique de rechargement et euh, d'embouteillement de gaz énergique boo relever numéro boobu nga bind ko def lettre de réclamation nga expliqué lépp ci lettre bi. bi may tay dama tay ba fi nga toll yëpp ci añ bi fi gaz bi jeexee yëpp nga leen expliqué yóbbu ko ci dépôt bi. boo ko yóbboo si dépôt bi dépôt bi ñëw buy sarte gaz dinañ ko yóbbu usine ba bu ñu ko yóbboo usine ba ñu xamal leen am na ku gazam jeex usine ba beneen yoon bu dépôt bi di sarte danañ ko tegal gaz ñu indi ko ci dépôt bi dépôt bi léegi dinañ ko indi ba fii ca kër yooyu ba ñoo amuñu problème boobu loolu moom gudd na moom loolu moom tàyyi naa ko moom i loolu moom tàyyi naa ko pourtant jafewul de tuuti ah, loolu moom di ay bind leetar yéeg wàcc yooyu dama koo taay boo lëgatee bi dugg maam kumba moom gaz yi fees jël lay ma fa waaw waaw baax na ah, moom de suñu fa baax na baax na booy booy añul man dinaa añ ba suur naan sama caan dallu fils walla la goos man maay bëri pexe